tey de dañu defoon benn ndaje boo nga xam ne euh, dañu bëggoon euh, gëstuwaat tuuti si li nga xam ne moom lañu doon liggéeyee si wàllu yee nit ñi si métital yi nga xam ne moom la ñu teg jigéen ñi ak xele yu ndaw yi. parce que suñu organisation depuis deux mille vingt un ba fi ñu toll nii deux mille vingt trois ñu ngi doon def ay waxtaan euh, pour gëna a yee askan bi si métital yi nga xam ne ñu ngi koy teg jigéen ñi. waaye tamit taxawal benn euh, kuréel boo nga xam ne euh, si quartier yi la ak si village yi pour que ñoom tam ñu gën a jàppale jigéen ñi si métital yooyu di leen dal euh, pour fàggandiku ko waaye tamit pour saafara ko bu fekkee ne am na si si biir gox bi si biir waxtaan yi nga xam ne nag dañ ko jëmale si métital yi gis nañu ay waxtaan yi ñu def si si biir quartier yi wala si village yi ak groupement de femmes yi wala ak association de jeunes yi waaye tamit ak ay waxtaan yi ñuy def ci rajo yi nga xam ne dinañu dina tax ñu jot ay nit ñu gën a bari ay góor ak ay jigéen euh, pour ñu mën a jot ci euh, information yooyu nga xam ne day dem ci wàllu médital lan la ak naka la ñuy def ba xeex ko ba mu jógee ci suñu réew. ñi fi nekk yépp mën naa wax ne que euh, bokk nañu ci benn ci activité ba nga xam ne lim naa ko fii. am na ñoo nga xam ne si causerie yi maanaam waxtaan yi ñu def si koñ yi ci la ñu bokkoon ñu ñëw séddoog ñun liñ ci jàng li ñu xalaat ne mooy gën a baax buñ pour ñu def ko ak li nga xam ne moom la ñu war a euh, téye parce que baax na am na ñu fi ñoo xam ne euh, si rajo yi ñu doon defee émission yi foofu lañ jóge am na ñoo nga xam ne tamit si cadre yooyu nga xam ne dañ ko teg si biir gox goxaat yi foofu la ñu jógee donc euh, muy ñetti groupe yoo nga xam ne euh, bokk nañ si liggéey ba nga xam ne day yee ñi ñi si wàllu métital wala ñu leen siy jàppale. dina métti mais yaakaar nañ ne euh, mën nañ mën nañ àgg fa nga xam ne même bu jeexul tamit dina wàññeeku bu baax a baax a baax te jàpp naa ne bu fekkee ne ñëpp am nañ am nañ ay information maanaam xam nañu lan la ak naka la ñu def ba mu jógee fi ak lan moo tax mu war fi jóge je pense que ne dina dina dina fi jóge parce que euh, ñëpp jàpp nañ ne lu rafetul la te lu jaaduwul la ndaxte dafa mel ni comme boddi konte ak ak yelleefu doomu aadama euh, ndax nit ki bu fekkee ne nangu nga ne doomu aadama la comme yow danga ko war a euh, jox àqam te boo ko joxee àqam waloo koo waroo ko mitital waroo ko bundu tey dañoo ñëw fii AADS invité ñu. pour une activité pour ramener évaluation lay doon parce que ay atangi ni ñom avec ñuy liggéey ak euh, communauté bi di liggéey aussi ak école donc nous ba tay di def sen évaluation ñu invité ñu pour ñu def échange d'expérience ak euh, ak ak d'idées euh, solo waxtaan bi ñu ko axé ci pièce d'état civil maanaam juddu Sey, ak ku génn aduna parce que bari na Sénégal ñoo xamné vraiment lolu euh, daf len di dañ ko wara out ut te jamono bañ ko wara a duñ ko duñ ko out donc ci lolu dañ doon waxtaanee tay pièce d'état civil manam kayitu juddu euh, kayit buy firnde ne ki yow yaa ngi sey muy certificat de mariage ak euh, certificat de décès parce que population mi ñu ci bëri loolu farataaluñ ko. bàjjenu gox yek euh les relais communautaires ak ñun comme directeur d'école yi dooroon nañ liggéey bu yag di def sensibilisation. bu ñu jógee fii xam naa dañuy gën a wéyal liggéey bi rek pour mu gën a jëm ci kanam incha allah. wàllu état civil dafa nekk loo xam ne xam nga dafa dafa nekk doy waar parce que état civil euh, surtout déclaration euh, pour xale bi am kayitu juddu parent bi moo ko war a def mais ñu ci bëri dañuy foog ne euh, jàngalekat moo ko war a def donc ñun suñu liggéey ci école yi mooy sensibiliser parents yi ba nga xam ne xale bi bu juddoo rek day dem directement dem utali ko kayitu kayitu juddu bi nga xam ne moo koy mën a permettre. mu jàng moo koy mën a permettre mu def examen. waaw parents d'élèves yi li ma li ma leen di wax mooy euh, pour nga déclarer sa doom lu lu yomb la donc euh, boo génnee hôpital jigéen bi bu génnee hôpital sage-femme bi am na kayit bu mu lay jox. waaw kayit boobu mu lay jox di wane ne xale bi judd na góor la jigéen la kayit boobu ngay yóbbu mairie boo ko yóbboo mairie dinañ ko defaral kayitu juddu euh, ci xaalis bi nga xam ne yeggul sax ñaar téeméer. donc euh, loolu ñu ci bëri dañuy yaakaar ne pour nga am kayitu juddu il faut nga dépenser xaalis bu bëri moo tax ju parents yu ci bëri di koy négliger mais nañ xam ne déclarer sa doom vraiment kooku laajul xaalis bu bëri laajul jot bu bëri aussi juste kayit ba ngay génnee hôpital moom ngay yóbbu euh, ci mairie ba boole ko carte bu papa bi euh, ñu ñu ñu ak ak bu yaay bi xale bi dina am dina am kayitu juddu même papa ji bu demul sax mun na yóbbante. li soxla moy carte d'identité bi donc ñu ci bëri toujours dañuy xaar nam papam nekku fi papaam nekku fi alors que avec pièce d'état euh, qui euh, euh, carte d'identité nationale bu papa yi war nañ mën déclarer xalé bi